إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñu ngi seede na yàlla rek moo yeyoo ñu koy jaamu di seede it ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo yeyoo di jàngale ne nii la ñuy war a jaamoo yàlla yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin mbokk suñu borom dey mooy aji xam mooy aji man moom moo santaane ñu tabax ab néeg néeg boobee nekk ca Makka mu faratal ñu dem aji ko mu teg ci loolu yool yu màgg ak pay yu kawe képp ku fa jëm mu garantir sécurité araamal ku fa bëgg a def bakkaar waxumaa nag def ko fa barkeel yiw yañ fay def ful julli ya nangu ñaan ya lii mbokk da ngay gis ne mooy la suñu borom yàlla dogal ci at Makka dogal ko ci weer yi nga xam ne da koo warmal yàlla moomu ñu ngi koy sant ci di ko gërëm di seede ne kenn yeyowul ñu koy jaamu ku dul moom gannaaw loolu mbokk jullit gis nañu ne day doomu aadama yi jamono yi ñu toll ñi ngi jóge ci gox yu sori ci ay façon melokaanu doomu aadama yu safaanoo ñoom ñépp jëm ci néegub yàlla ba waaye mbokk ñooñu da ngay gis na ñaari mbooloo lañu mbooloo bu jëkk ba mooy ñi yàlla wërsëgal ñu am kattan di waat ngir jëm ci at ga waaye mbooloo ñaareel ba mooy ñi nga xam ne seen xol ya moom ma nga aju ca at makka doonte ne ne ngant tax na ba mënuñoo ànd ak mbooloo ma ca mbokk loolu mooy jubluwaayu suñu xutbab tey mooy ngir fàttali jullit ñi ne ñun ñépp day suñuy xol dafa war heure bu at makka ñëwee suñu xol yépp ñu at ko makka yii ne woon ne cay aka ne xon tey ma bokk ci ñuy aj loolee mbokk ci jaamu yàlla yi gën a kawe la bokk mbokk aj makka jullit da ko war a bëgg waaye danga ko gën a bëgg nag su dee xam nga dëgg-dëgg yi la fa nekk doonte nag sénégalais moom boo ko ne yàlla na nga dem makka rek ñaanal nga ko la gën a màgg mbokk nañu xam ne foofu la yàlla samp néeg bi gën a màgg ci néeg yi néeg boobu nga xam ne mooy mandargal wéetal yàlla ne moom rek la ñu war a jaamu néeg boobu ñu taxawal ngir tudd yàlla sant yàlla màggal yàlla day wañe ne kenn yeewul ñu koy jaamu ko dul moom sunu borom yàlla farataal ci jaam yépp ci ne nañ dem aji ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ay yéen nit ñi ay waay ko mën na dem aji ji mi ngi noonu ca fa lilahi alhamdu benn yoon la ko yàlla farataal ci dundu doomu aadama bi mi ngi noonu donte ne gannaaw farata gu mag googee doomu aadama yi bëri duñu deñ di dépenser seen alal di gàllankoog ay coono ngir dolleeku waat la nga xam ne mooy ay naafila yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ni julli mel noonu it la ak makka mel jiite na at ga daañu ne saxaaba yi xool leen bu baax ni may aje ngeen xam ne noonu lañu war a aje ndax yaakaaruma ni danaa mën a dajawaat ak yéen beneen at boobee ndekete mi ngi tàggoo looloo tax ñu tudde ko xajatul wada mooy ajug tàggatoo ga ñetti weer la ci yonent bi alei salaam teg daal di wuñ ci boroomam loolu moo tax ba ngallaawaay ñi ngi leen di dénk ñi ngi dénk ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu aj ñu xam ne ci jaamu yàlla leen jëm jëmuñu ci folklore jëmuñu ci yëkkati ay daraja jëmuñu ci nit ñi dégg leen loolee ñu bàyyi ci xel bu baax lépp lu yàlla digle rek seytaane dana ngemb ba dëgër ngir jël ca cëram la ñuy def fu ne nga wër fa dajale mbooloo ñuy tant ka chaise ka waye ka lu nekk ñu def ko ngiree lan diw day tàggatoo aj màkk lu ci jar loolu ba nga jógee di ñëw julli si juma ndax def nga loolu mi ngi noonu na ngay jógee sa kër dem ca jumaa ji rek ngay war a jógee sa kër dem aji ji màkk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax boo ko jurit yaa ngi jëm ci jaamu yàlla goo goo xam ni ah la ca gën a am solo mooy sellal ga nga koy sellal looloo tax ñiy dem ñu ngi leen di dénk gàllawaay ñu topp ndigali yàlla topp ndigali yonent yàlla takkoog zikrullah takkoog sant yàlla te xam ne kat suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ak màkk mi ngi nii faratal naa ko ci ay weer yu ñu xam képp koo xam ne yaa ngi jóg di aji lépp lu jëm ci waxu wàllu sëy lépp lu jëm ci wàllu dagg sante ak xuloo ngal la waaye bu ko kenn def ci aj màkk gi su ngeen dee dem yóbbalu leen waaye xam leen la gën li ngeen di yóbbaloo mooy ragal yàlla waaye ragal yàlla googu ndax ñëpp ko man déedéet suñu borom ne wattaquuni yaa ulil albaab ay yéen borom xel yi ragal na ngeen ma ragal moo ko ragal yàlla borom xel mu mag rek moo ko am moo ko mën suñu borom yàlla subhanahu wa taala kon dogal na jamono ji nit ñaa ngi waaj di dem makka ñee nga jaar ca avion ya ñee nga jaar ca bato ya ñee nga jaar ca oto ya am na ñoo xam ne ñu nga jël seeni tànk ngir jooxe ji la suñu borom yàlla santaane woon ibrahim ay ibrahim wooteel at ci nit ñi nit ñi daan jóge min kulli fajjin amiq jóge ca gox yi gën a sori te falilahi alhamd booy seetaan télévision sawu jën ci jamonoy at ñuy def seen interview yi da ngay gis ñii nga jóge australie ñii nga jóge philippines ñii nga jóge nord canada ñii nga jóge fa gën a sori ak lakk yu safaanoo ngiree ngir seede si ngëneel ba nga xam ne moo leen fee xaar mbokk aj màkk mi ngi nii mooy juróomeelu ponk ca ponk lislaam bi nga xamee ne nii suñu borom yàlla ma ngi ko def ca place ba gën a màgg ci kaw suuf ca mooy màkka benn jullit warul sikk sàkk ne place bi gën a màgg màgg ci kaw suuf moom mooy makka makka boobu nga xam ni sunu bàyyi ibrahim la yàlla santoon mu daal di fay taxaw tabax kaaba ga moog yonent yàlla ismail seen gannaaw mboolem yonent yàlla yi ñëw yépp jaar nañ foofe ay yow mi nar a dem wër kaaba ga daw safa ak marwa xamal ni loolu mboolem yonent yi def nañ ko ñu ngi noonu gannaaw loolu da ngay gis na makka googee ca la yàlla jollilee leerugul islaam ca la yàlla doon wàcc jibril mooy wàcc alquranul karim bi nga xamee ne ëmb na adduna indi civilisation boo xam ne adduna mënu ko wan a am ca du ko am leneen lu dul ci lislaam mbokk place bu mag boobee fa la juddoo suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam fa la màggee fa la defal li ëpp ci dundam juróom fukki at ak ñett màkk na ko dund madina fukki at rek la fa nekk yow ujaaj bi yaa ngi nar a jëm ci place boo xam ne aboubacarin saddiq doon na jiite jullit ñi ca aj omar ibnul xattaab jiite jullit ñi ca aj usmaan ali ñoom ñépp mooy ak sahabatul kiram foofu lañ nekkoon di dundal diineel islaam ñooñu nga xam ne mbokkoo la suñu borom yàlla wax ni ci ñoom ñooy suñu royukaay ñooñu la ñu war a topp loolu moo tax ba ngalawaay yow mi nga xam ne yaa fa jëm ci sa jëmm ak yow ma fa jëm ci sa xol fàttalikul ngëneel yi nekk foofee mbokk makka googee la suñu borom yàlla dogal julli goo fa julli yàlla ful ko muy téeméeri junni ci ay julli waxuma téeméer waxuma junni waaye julli goo fa julli muy téeméeri junni ci ay julli mbokk makka nga nele fa la safa ak marwa nekk fa la jamaraat ya nekk fa la munaa nekk fa la arafaat nekk fa la musdalifa nekk place yooyu yépp de place yu ñaan bu doon te ne dara yóbbuwul makka mooy aj makka sax amul waaye teewoon ca place yooyu ñaan yàlla rek jaroon naa dem makka loolee kon ngeen bàyyi ko xel bu baax mbokk dañuy gis ne képp koo xam ne jullit nga sa xol bi dogu gu rëy war na caa nekk ci waajal dem makka am maa nag ña nga xam ne seytaane da leen a nax bañ jàpp ne aj makka moom waru leen wallahi ñooñu bokkuñu ci lislaam bi képp ku jàpp ne aj makka wóoru ko bokkul ci diine aj makka moog julli ñoo yem amul kenn ku am droit réere ni aj makka farata la ci moom loolee ñu bàyyi ci xel bu baax loolu moo tax ba mbokk jullit bépp jullit boo xam ne xolam bi laab na sell na yàlla dugal na ca aj makka nekk bëgg-bëggam suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo nangu woon ñaanu baay ibrahima gam ne woon faj al afidatan min an naasi tahwi ilayhim ay yàlla yàlla na nga def xolu lenn ci nit ñi jëng jëm makka loolu moo tax ba mbokk mi ngi noonu loolu doonte ne seytaane galgal na lenn ci ay doomu aadama ñoo xamee ni nii ña nga topp commerce ba ña nga topp bànneexu àdduna naam war naa aji anoo danaa aji dinaa aji dinaa aji ba yàlla subhanahu wa taala la nga xamee ne nii wërsëgaloon na ko ci aj loolee daal di teggeeku ci yow mu nekk musiba yu rëy mbokk suñu borom yàlla def ne wareef la ci doomu aadama yi ñu aji képp ko ci am kàttan mu ne ko weddi nag yàlla woom leneen ci nit ñi yàlla waxul ko ajiwul de daf na ko weddi ca loolu lu muy wane mooy ki mën a aj ba pare moom lank aju jiwul kooku daa mel ni weddi na yàlla moo tax suñu borom ne wa man kafara borom bi it daa di wax ne mooy ganiyun anil alamin mooy mboolem nit ak jinne buñ ko jaamuwul woon amul lenn loo xam ne dana ko wàññi ci nguuram gi lu toll ne le pouce boo sampoon ci géej di wàññi ci géej gi loolee ñu bàyyi ko xel bu baax ay yéen mbokk jullit nii da ngay gis ni boo delloo ci histoire makka wallahi dañ la ciy nettali ay mbir yoo xam ne mbir yu yéeme la bokk na loo xam ne nii mas nañ leen ko nettali fenn ci benn xutba ci kenn ci imaamu makka yi di ko wax benn jigéen boo xam ne mi ngi jóge woon Indonésie bi mu ñëwee ba dugg ci place bi kaaba gi nekk mu ñëw rek seen kaaba gi daal di sujjuut bi mu sujjuutee sujjuut bi yàgg lool. gannaaw ba mbokk yi ñëw fëgg ko fekk faatu na ñu laaj mi kii lan mooy mbiram ñu ne moom kat 30 ans yi nii mi ngi dajale paas makka ren lay doog a mat gannaaw ba la ko yàlla subhanahu wa taala ah may mu aj si bi mu ñëwee ba gis kaabe gi émission boobu mu doon dund ci 30 ans yooyu mënu koo muñ mi ngi noonu kenn ci waa restaurant yi nekk Jidda mi ngi nettali nee na ay benn couple dañoo ñëw ba màgget biñ ñëwee ñu commandé ay lekk yu ñàkk solo benn waaye gis leen ñëw daal di leen def fayal ay plat ceeb ak lan ci def yëpp waa ji ñëw jox leen ne leen lekk leen duñu déedéet mu ne noo kii daf leen koo may ñu ne duñu lekk mu ne mais lu tax du ngeen lekk mu ne ko moom mook soxnaam dañoo sacrifié woon seen añ bi ñu doon añee lu jege ñaar fukki at a ngi nii ngir dajale paasu mag bareen lay doog a mat dañoo ragal nag ne bu ñu ko lekkee léegi dañuy feebar comme ñaar fukki at a ngi lekkuñu ko mu ndax gars yi yéen a ngi bàyyi xel loolu ñooñu c'est des indonésiens wala lu kenn xamul waaye tey kenn ci xatib yi nga nekk sa ñi imam yi nekk Arabie Saoudite mi ngi nettali ci xutbaam lu ko yéem ci aj Makka benn mbokk boo xam ne mi ngi tudd El Hadji Ousmane Dabo El Hadji Ousmane Dabo mi ngi jóge Gambia ngallaawaay maa ngi fàttali nit ñi bokk na ci tooñ yi ñu tubaab bi tooñ biñ ñee fekk ni ñu nekk benn réew ñu daal di ñuy xaaj séddoo ñi français yi jël Sénégal ga anglais yi ñoo joxati Gambie mbokk Gambie ci biir Sénégal la bokk. kon kii ma leen di wax ñoo bokk réew El Hadji Ousmane Dabo muy ñetti di nee na ñoom dañoo nekkoon juróomi jeune ci Gambie ñu daal di dogg ne. ñoom daal dañuy aji ji mag nee na biñ dajalee li biñ dajalee liñ jot a am une semaine lañ ci mënoon a dund waaye ñu daal di départ ay ceene Mauritanie dikkal na leen Algérie di dox nee na ci diggante bi daj nañ ci ay coono yoo xam ne mënuñu ko nettali ci ci dund àdduna nee na yàlla dogal na ñu dem ba mujj am kenn ku faatu ñoom ñeenti continuer ñu demaat ba mujj keneen faatu ñu daal di continuer même moom dem na benn jamono boo xam ne ni sax mi ngi wax lu ko mat jàppatuma jaan la wax wala jiit waaye nee na jàppoo ne na moom day faatu nee na dem nañ ba yéeg géej ñoom ñett ñi desoon am ci kenn ki nga xam ne moo ëppoon doole ci ñoom ëppoon farlu ci ñoom yàlla dogal mu feebar bi mu feebaree bay faatu mu ne leen ay yéen Ousmane bu ngeen demee ca Kaaba ga ne leen yàlla man day ci moom laa jëmoon lenn dong nag laa doon wut si yàlla na na ma dugal aljana ak samay waajur ngallaawaay bu ngeen demee Kaaba ga ñaanal ma loolu Cheikh Ousmane boobu mu ne man jàppoon naa ne c'est fini damay dee parce que kii moo ñu ëppoon kattan ñun ñëpp. loolu la ñu gis mbokk di dem ñuy dem di dem ba yàlla dogal nee na ñu yegg ca jég yegg Jidda yàlla dogal wërsëgal ñu ñu daal di doog a yegg ca Kaaba ga mbokk da ngay xool lii di mbir moo xam ne ak yéeme woon ku ko doon wax ci sunu jamono yi gannaaw waaye tey yéen ñiy déglu rajo ak télévision yi sunu doom yi nga xam ne dañ naan Barça wala Barzaq da ngay gis coono yi toll noonu la ñuy daj traversé désert Sahara traversé la nga xam ne muy Libye affronté ay balles réelles yu ñu di dóor ay griffeurs yi ñu def courant loolu lépp ngir lan ngir dugg biir Barcelone da nga ci gis ñoo xam ne bu ñu demee ba dugg ci seen île yooyu dañuy nekk sujuut jàpp ne jeex na ca mbokk lan lañ fay wuti mooy dem di raxas golo yàgg xaji tubaab ya ndax dañ fa am dara lu incertain waaye mbokk da ngay gis jullit ñi nga xam ne nii ay jeunes lañu bi yàlla tabbalee seen xol bëggeel gu ñu bëgg diine yàlla ji gis nga lam leen jaral ba ñuy dee dee ci yoon bi ba ñuy feebar feebar ci yoon bi donte ne loolu mbokk suñu borom yàlla du ko neenal mbokk at makk neex na loolu léegi waaye suñ maam yi njëkk aji fii wallahi da ngay gis ñu si bëri ci ñoom dañ daan miiras seen bopp doo ko dem Sénégal suñ maam yi fi daan jóge di aji lu mu néew néew ñetti at daanañ ko def doog a ñibbi siwaat ca boo xisee jóge sa kër kenn xamatul ci yow dara jeex na kii di alxaaji Ousmane bi nee na deux ans lañ def diggante Banjul ak Makka loolee kon mbokk li tax ñu koy fàttali suñu xutba tey bii mooy li yàlla dogal ba ilaa yawmi diin jullit ñi duñu dem Makka ñoom ñëpp tey jii booy xool Sénégal jege nañ quinze millions waaye lay dem Makka bu motee treize mille ca lay yem donc un sur mille sax bokkul ci pourcentage boobu ak lu mu mën a doon noonu la su ko defee kon déjà yow mi yàlla boole ci lim boobee nga la way xamal ne yàlla tànn na la ci biir tànneef at boobee sant ca yàlla def ko ca yàlla rekk tax jàngal naka la ñuy aje jàngal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itamit yow mi nga xam ne ajuwa woon te sa xol nekk ci aj màkka nga la way ren raw na la waajal waajal def aj makka muy sa programme yow jeune intellectuel mi def war oto sa programme la jàpp nga ne commencé nga liggéey quelque temps da nga war a war oto ñee jàpp tabax kër pro seen programme la na am loolu lu baax la kër lu baax la oto lu baax la waaye nag na nga xam ne mbokk bokk ne priorité des priorités mooy nga góorgóorlu dogg ci yàlla tax yéene bu sell wallahi boo ko defee yàlla jàppale la rasul sallallahu alayhi wa sallam daana wax ci li ibnu abbas nettali mu ne ay yéen nit ñi ngallaawaay gaawee leen aj makka ndax kat kenn ci yéen du xam lan moo koy gaar mi ngi noonu kenn ci yéen ko bëgg a aji na aji ndax feebar kat day dab doomu aadama bi ñàkk kat day dab doomu aadam aadama aadama bi la chaque ne bilal càm bi xam na suñu benn mbokk bi ñëw fii ci jàkka ji daaw waajaloon na aj makka ba dernière minute yàlla daaneel ko mu daal di daanu feebar mi ngi noonu te jàpp ñu ne feebar boobu mën na ci jógee demaan makka lii kon ay misaal rek la tey jii da ngay gis démb heure bii démb rek ñoo ngi dem ci benn dëcc ka nga xam ne nii moom lañ demoon mag Bilal Cam bi ñoo àndoon soxnaam tàggoo woon na ba pare ne day dem makka yàlla subhanahu wa taala dogal jëkkëram daal di faatu nii te xam ngeen ne ci sharia bépp jigéen boo xam ne armalugul yàlla dogal jëkkëram faatu ku mel noonu ak makka googee fokk mu bàyyi ko ba beneen kon la la mën a gàllankoor bari na looloo tax boo demee ba yàlla dogal condition yi daje ngir nga mën a dem makka ngal waay jugal dem makka yow jigéen même bu la sa jëkkër ne doo dem ngal la waay xamal ne lislaam may na la nga dem yow doom bu la sa bàyyi ne doo dem ngal la waay xamal ne lislaam may na la nga dem ndax topp ay waajur ak jëkkër ñoo ngi koy def ci njëkk ca ndigalu yàlla moo jiitu leneen lu dul ndigalu loole loolee kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax jéem a fexe jamono yi nga xamee ne yëpp bu jaaj yi ngan la waay ñi ngi bàyyi seeni kër dem makka ak ay millions yu ñu ca dépensé yow demoo makka dépensé yu ay millions waaye lu mu bon bon bon ngal la waaye jamono joojee nga xam ne jamono yi at la fexeel téye sa bopp fexeel nekk ci aju aju biir kër ca mooy loo mën ci lu baax nga yokk ko loo mën ci génnee sarax nga def ko loo mën ci zikrullah ak ñaan nga def ko loolee ngiree wallahi bu sellee sa xol suñu borom yàlla ñee aji ji lépp tuyaaba boo xam ne indi nañ ko fa yàlla subhanahu wa taala dana ko boole ak yéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne la nga xame ne nii moom mooy aj ak umra dana teggi ñàkk di teggi ay bakkaar comme ni nga xame ne nii xomag xomag yi nekk ci weñ safara da koy teggi mu ne nag aj goo xam ne dañ koo jaarale ci yoon lenn lu neexul yàlla amu ci payam rek mooy aljanna na am payam mooy aljanna waaye yow mi aji jiwul nag yow mi aju jiwul yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jóge na xare tabuuk defal yi nga xam ne moom la ujaaj yi def tey makka ay ñaar fukki fan def na ko ca xare boobee bi muy nibbis yi mu ne moo ne day yàllaa ngi bàyyi ay suñuy mbokk ca madina amul benn tuyaaba bu ngeen jële seen jihaad bi lu dul yàlla fay na leen ko sahaaba yi na ko ah te ñoom ñu ngi toog madina mu ne wallahi naam lu tax mooy ñoom da leen a fekk la nga xam ne mooy lor xabasahumul uzr mooy dañoo am ngant moo leen tee ñëw loolu it yàlla moo moom suñuy xol allahu yaxuulu bayna al mar'i wa qalbi yàlla gën a xam xolu doomu aadama képp koo xam ne yëg na ci yow sincérité ak dëgg gu wér ci ne kat bu doon te ne say moyen daje na kon fokk da nga bokk ci ñuy aji wallahi boo faatoo ci aju ji woo it yàlla ëllëg gi si biir dana la booleeg ña doon aji mbokk mi ngi noonu mboolem ñi nga xam ne nekk nañ ci ñun di waajal yoonu aj makka yàlla yàlla yéggale leen ko ci jàmm yàlla yàlla yóbbu leen ñu aj aj ga yonent bi alayhi salaatu wasalaam ajoon yàlla yàlla it wuutu leen seen njaboot ci delloo leen si ci jàmm mboolem ñi nga xam ne yàlla dogal na ay jurit la ci aji wuñu yàlla yàlla nangu aju xol ga nga xamee ne ni moom la leen sant yàlla yàlla laabal suñu xol boole ko ci xol yi nga xam ne ña nga jéng di jëm ca masjidul haram allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar rabbana la tuzig qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahuma habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuq wal isyan واجعلنا برحمتك من الراشدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين